salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi في كل سير ñu ngi nuy nuyoo bu tedd. Bàjjan Soxna Baali. Soxna Baali. ñu ngi lay siyaare bu baax a baax. ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax. Eh, am na ñu ko wax. am na ñu ko wax. te ñun. te ñun. duñ wax mukk lu nu gëmul. wax mukk lu nu gëmul. ñun ñëpp xam nañ ne. ñun ñëpp xam nañ ni. taxawaay bi nga taxaw. taxawaay bi nga taxaw. ci yoon wi ci yoon wi. ñun ñëpp xam nañu. ñun ñëpp xam nañu ko. taxawaay bi nga xam ne. taxawaay bi nga xam ni. moom nga def. moom nga def. ci sa maam soxna jaara. sa maam soxna jaara. ñëpp xam nañu. ñun ñëpp xam nañu ni. sa taxawaay bi nga def. sa taxawaay bi nga def. ci sëñ Muntaxa mi. ci sëñ Muntaxa mi nga xam ni. mooy xaadimu rasul. mooy xaadimu rasul. ba tey jii. ba tey jii. ñuy wax sëñ soxna Baali Muntaxa. ñuy wax soxna Baali Muntaxa. loolu nag garaat la. loolu nag garaat la. garaat bu rëy rëy. bu rëy la. ñu ci bari. ndax ñun ñu ci bari sa taxawaay. sa taxawaay. ak li nga mel ci yoonu murit. ak ni nga mel ci yoonu murit. ak ni nga mel ci sëñ Muntaxa. ak ni nga mel ci sëriñ Muntaxa. looloo tax ñun ñëpp la soxla. looloo tax soxna Baali ñun ñëpp ñoo la sopp kon. du ma sori. du ma sori. ndax li may wax. ndax li may wax. bu ma koy wax. bu ma koy wax. day mel ni ci sama bopp laa koy wax. day mel ni ci sama bopp laa koy wax. ku toog ku toog. di wax ci boppam. di wax ci boppam. waxam warut a sori bu amee xel. waxam warut a sori bu amee tuuti xel. waaye bàjjan. waaye bàjjan. sa taxawaay. sa taxawaay. ci yoon wi. ci yoon wi. sa taxawaay. sa taxawaay. ci yoonu Serigne Touba. ci yoonu Serigne Touba. te bu ma ko waxee. te bu ma ko waxee. mooy Serigne Mountakha mii. mooy Serigne Mountakha mii. nekk xaadim rasul nekk xaadim rasul kon nag kon nag ñi ngi lay ñaanal soxna Baali ñoo ngi lay ñaanal ci sa barke ci sa barke maam Sëriñ Touba maam Sëriñ Touba yàlla yàggal la fi yàlla yàggal la fi soxna Baali waaye tey ñu ñëw waaye tey ñu ñëw ci ci yónnent yónnent bu jógee bu jógee ci président Macky Sall ci te ñun ci suñu bopp. te ñun ci sunu bopp. mën a seede. mën a sa taxawaay. sa taxawaay. ci wetam. ci wetam. mën a seede. mën a sa taxawaay. sa taxawaay. ci wetu soxnaam. ci wetu soxnaam. kon. kon. kóllëre googu. kóllëre googu faw ñu fàttali ko tey faaw ñu fàttali ko tey buñ ci dee wax ba suba buñ dee ci wax fii ba suba du jeex du jeex waaye ñu tënkaat ko ba waaye ñu tënkaat ko ba tey di wax ne di wax ne délégation bii nga xam ne délégation bii nga xam moom la sa xarit ba moom la sa xarit ba sa soppe ba président Macky Sall président Macky Sall yabal ànd ak ànd ak ànd ak lenn ci sa njaboot lenn ci sa njaboot bu ma tuddee sëriñ Abdoulahat Gaynde Fatma bu ma tuddee sëriñ Abdoulahat Gaynde Fatma ma dugg ci biir mu dugg ci biir ak ñeneen njaboot yi ñu àndal yëpp ak ñeneen gi ñu àndal yëpp ñu bokk ci dëkk bi ñu bokk ci dëkk bi te nga doon sunu kilifa te nga doon soxna baali sunu kilifa ci dëkk bi ci dëkk bi doon sunu bàjjan doon sunu bàjjan kon délégation boobu kon délégation boobu damay bàyyeeg damay bàyyeeg ki nga xam ne ki nga xam ni mooy chef de délégation mooy chef de délégation bi muy le ministre Omar Youm muy le ministre Omar Youm mu yëkkati kaddu googu mën a lim ñi ànd ci délégation bi ñun daal suñuy wax ñun daal suñuy wax ko tënkee jëm ci sa jëm buñ ko tënkee jëm suñu si sa jëm yàlla na la fi sama mbaay na la fi sama mbaay soxna Baali Muntaxa jërëjëf te sunu xalifa général des Mourides fa la nu njëkkee wax ko wax ko ziyaaru président fàttali ko cofeelam ak taalibeem ak boole boppam ak bokk bu mboole boppam ci mbir ñu jógee foofu nag ñun ñëpp sunu xel ak suñuy xol jaar fii rek siyaare soxna Baali Muntaxa ci turu président Macky Sall Serigne Modou wax na ko léegi man digganteem ak président Macky Sall ak soxna président Macky Sall xam naa ci lu bëri ñëw naa fi ay yooni yooni yoon guddi ak bëccëg ci yonente président te lépp luy dëgëral mbokk luy defar Sénégal moom laa fi jële kon li mu wax ci diggante boobu man seede laaj soxna Baali nag ku gis délégation bi président Macky Sall yónni da xam ne nekku fi waaye xolom da nga xam ne nekku fi waaye président Macky Sall mi ngi fi nee na xoolal jigéen yu baax ñi mu boole ci délégation bi kooku toog sa wet di jéegi Jóob toog sa wet noonu di kenn ci président Macky Sall nee na Fatoumata Tall nekkoon ministre de la jeunesse am ndong ma tànk yu bëri yoo xam ne amoon na ko Fathia mii nga xam ni député la woon ku ne xam pas-pasam ci président Macky Sall fu ngeen mën a dem bu ngeen leen ko fa bàyyi ne na sunu jaamu alpulaar bi madame Kane Aïcha nga xam ni moom tam lépp lu ñuy liggéeyal président buñ ko ci woowee ak buñ ko ci woowul nee tey bokk na ci ñi njëkk taxaw ci permanence bi soxna Baali nag jigéen ñi ci suba ba léegi ñoom nee naan seen ziar fii la ci kanamu soxna Baali Muntaxa moo tax ñu bàyyee leen ziar bi ñoom lan bëggoon a jox sax kàddu gi ñu wax waaye ñu ànd ak Mor Ngom waaye wëlëre Seydou Gueye ak Seydou Gueye nekkoon porte-parole du gouvernement nekkoon porte-parole de gouvernement bi ànd ak Mansour Faye ànd ak Mansour Faye ko présenter ci goro président ak rakku président mën nañ koo présenter ci goro président ak rakku président mais ku nekk xam ne ne Mansour dafa xalal boppam yoonu boppam ci parti bi nekk responsable ci parti nee na na ni Mansour dafa nekk responsable nag ci parti bi sunu frère Moussa Balde. ak sunu frère Moussa Balde. xam ne moo nekkoon ministre de l'agriculture enseignement supérieur. ndombo tànk yu bëri moom ndombal tànk yu bëree bëri yu mu jotoon am. ak sunu frère Mamadou Kassé. ak sunu frère ak Maysa Mayokoor Mayokoor Diouf. ak euh, ñi nga xam ne nag. ak ñi nga xam ne nag. ay loxo ndey jooru président Macky Sall lañ fii ci biir Touba ak département joor lan. yoo xam ni ci président fii ci Touba ak département bi ak li ko wër Cheikh Abdou Bali mii toog rendez-vous yi jël yëpp rendez-vous yi ni jël yëpp moom moo ko doxal moom moo ko doxal ànd ak ñun nag ci suba ba léegi ñun nag ci suba ba léegi di fëddali wóllëreem di fëddali ak jàppale bu muy jàppale ak jàppale bu muy jàppale président Serigne moodu mi ubbi jotaay bi Serigne Modou bi moom it noonu la taxawee moom it la taxawee ànd ak ba léegi ak ñun ci suba ba léegi ànd ak responsable Mbàkke yi ak département bi. ñu ànd ak responsable Mbàkke yi ak département bi yëpp. honorable député Matar Diop mi ngi woon ak. honorable député ñoom ba ba léegi. Maguette Diakhaté mi ngi woon ak ñoom. góor gi Maguette góor gi Maguette Diakhaté mi ngi woon ak ñoom. ak Sadaga. ak Sadaga. ñoom ñëpp ñoom ñëpp. ñu bàyyi li doon def. ñu bàyyi li ñu doon ak ñun. ñëw ànd ak ñun. am mbégte nag fekk jigéen. am mbégte nag fekk fi sunu jigéen. daba mi nga xam ne. daba mi nga ne. dañu ko dàkkantal koo dàkkantalee Macky Sall. fi mu ne nii kenn xamatul santam fi mu ne nii kenn xamatul santam. am nañ mbégte daba fekk. am nag fekk la fi. Ah, soxna si nag. soxna Baali nag. defe naa ne sëñ Modou wax na lépp. defe naa sëñ Modou wax na lépp. la ak ngërëm la. cant ak ngërëm. ak ñaanal la sunu borom. ak ñaanal la sunu borom. mu sàmmal ñu la. mu sàmm nag yow soxna Baali. sumbal sa liggéey bii nga sumbal sa maam soxna Bali. jaarale ko sunu sang bu tedd bi. jaarale ko sunu sang bu baax ba Serigne Mountakha. yàlla na la ci borom wàllu. yàlla na la ci sunu borom wàllu. nga am ci ndam yu bëree bëri yow soxna Bali. soo ko amee Sénégal yëpp koy am. soxna Bali boo amee ndam. Sénégal gépp am ndam. li tax ma wax ko nag. li tax ma wax ko nag. mooy mosuma fi ñëw. mooy mosuma fi ñëw. fekkuma fi senegal te fekkuma fi Sénégal fii ci Keppaar Soxna Bali. ñëpp ñooy ñëw fii ci soxna Bali. ndax sa yaatu. ndax sa yaatu yow soxna Bali. ndax sa mbaax yow soxna Bali Muntaxa. ndax sa xam sa teraanga. ndax sa xam sa teraanga yow soxna Bali Muntaxa. kon daal ñoo ngi lay sant yow soxna Bali Muntaxa. di la ñaanal yàlla. di la ñaanal yàlla. lii ngeen sumb. lii nga sumb. yàlla bu la ci kenn ëppale. yàlla la ci kenn yow soxna Bali. yàlla la ci sunu borom gunge. yàlla na sa maam sëriñ Touba fekk si. na sa maam sëriñ Touba fekk si la ci. te képp ku ci am ndam. te képp ku ci am ndam. kenn du la cëppale. kenn du la cëppale. te ñun am nañu yaakaar boobu. te ñun nag am nañu yaakaar boobu. daal ñu ngi lay sant. ñoo ngi daal ñoo ngi lay sant. di la gërëm di la gërëm. di la indil cant. di la indil ak ngërëm. ak ngërëm. président Macky Sall. xam nga euh, yore réew. xam nga yore réew. lu metti la lu metti la. benn benn nit du ko man. dangay am élément yu bëri. dangay am élément yu bëri. ñii dañuy nekk ci gouvernement. ñii dañuy nekk ci gouvernement. nekk ci ca taxawee ca pegg ya. ñii dañuy taxawee nag ci pegg yi. mooy li ñuy wax sori ta jege. mooy li ñuy wax sori te jege. soxna si nag. soxna si nag. sori woon na ci saayir. sori woon na ci saayir. waaye ku jege woon gouvernement bi. waaye ku jege woon gouvernement bi la. foofu nag laay mën a tënk kàddu yi. nee foofu rek nag laay mën a tënkee kàddu yi. li ñu xam. parce que li ñu xam. doo ko doo ko mu jeex. doo ko wax nag ba mu jeex. waaye xam nañ ne daal. waaye xam nañ ni daal. président moom président moom. kontaan na ci yabal ñu ci yow. kontaan na ci yabal nag ci yow. tànn délégation ni mu ko bëggee. tànn délégation am mu ko bëggee. yéen ñii laa bëgg ngeen demal ma ci. yéen ñii laa bëgg ngeen demal ma ci Soxna Bali. jotali ko sama ziar. jotali ko sama ziar. feddali ko sama wóllëre. feddali ko sama wóllëre. ak sama cofeel. ak sama mbokk ak ak sama mbokk ak moom. loolu daal moo nekkoon kàddu yi sant la gërëm la jërëjëf salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar salaatu في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر